نونغي لين دي نويو دي لين زيار دي لين بالو حق دي لين بال دي جيتال سي نويو بي اك زيار بي شيخ سيد المختار دي كو نيانال يالا سوني بروم ياغال كو فيتا ويرال كو امبولم لومو نال سي لغيال كو الاسلام لغيال كو مامم خادم الرسول مو ديفيكو نيم كو بغي ak mbollem jabatu serigne touba yep diko ñaanal mbollem kilifa diine yep ak julit yep ak talibi euh bokk yi eh, no ngi len di ziaré bu baax fi ci sen télévision touba ci plateau spécial ngir lépp rek jëm ci wàccaay wi nga xam ne ñu ngi ci ngir màggal gi te xam ngeen ne loolu lépp nekk ci njiitul cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu cheikh Abdoul Khader ñu di ko ñaanal yàlla ak wér di ko ñaanal kattan ba yéene yi mu am yépp ak taxawaay bu am solo bi nga xam ne am na ko ci liggéeyal ko lislaam liggéeyal ko yoon wi suñ borom may ko kattan goo xam ne dana ko mën a yeggale ni mu ko bëggee nga xam ngeen ne fan yi yépp yi gis ngeen ñu ngi ci forum bi ngir lépp nekk ci wàccaayu màggal gi rek di jaajëfal bu baax a baax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom sëñ Cheikh Gaynde Fatma ak bokk yi nga xam ne ñoom lañ àndal ci liggéey bu am sell bu sell bi nga xam ne ngir jotal taalibe yëpp rek màggal gu am solo gi nga xam ne eh, tew féex la ngëneel la loolu moo waral tey jii bokk yi fenn fu ci nekk eh, ay mbooloo nekk fa ay kuréel nekk fa lekk jëm ci wàccaayu màggal gi mu mel ni kon tey jii dañu ca fa yéene ànd ak yéen nag ndax bu ñu waxee màggal gi mooy lan mooy tukkib sëriñ bi Eh, di jaajëfal bu baax jëwri ni béréb bi alhaji Mbakki yu fay moom it kenn ku nekk di rafetlu taxawaayam ci màggal gi ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ni ànd na ko comité bi noo koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal yàlla yal na yal na yàlla yeggale yéeneem ca dëgëral kattanam ci barke xaadimu rasul dafay mel ni sëriñ bi bi mu joxee ndigalul nu woote màggal gi dafa waxoon nu santale ko yàlla ci bis bi nga xam ne mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar eh, ban xew-xew moo amoon ba tax sëriñ bi tànnalu fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar moom de bis la woon boo xam ne lu metti la woon ci bis boobee ngir ye ca xew waaye mujj na nag nekk bis bu neex ci xewal gu yaatu goo xam ne borom bi subhaanahu wa taala dottil na ko Cheikh Ahmadou Bamba ca liggéey bu réy boobu mu ko liggéeyal moo di tukkeem bu màgg boobu nga xam ne wax na li ko taxoon a jóg ba muy génn dafa wax ne xarajtu yowma sabti thamina achar li xidmati lmuxtaari fi chahri safar maa ngi génn tey gaaw fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar booba fan la jëm liggéeyal yonente bi alayhi salatu salaam ndax sëriñ bi mu ñëwee dafa am lu ko yitteel am lu ko tax a jóg waxoon naa ne sëriñ bi jotewul ak nasaraan bi ngir ay tool yu ñuy xëccoo jotewul ak ñoom am yaxantu jotewul ak ñoom am sàmm lan moo ko jotale ak ñoom mooy saxal dëgg yëkkati ko ak nasaxal ay neen rek sëñ bi moom loolu moo nekkoon yittee mooy lépp luy tax dëgg yëkkati ko ci kaw waaye lépp luy tax rek ay neen euh, nasax mu mel nii it la sëñ Modou Diop Pakha radiyallahu taala anhu waxoon ne Serigne Touba bi muy ñëw jamono dafa am fu fekk diine dafa fekk jëmmi diine ci boppam faatu sëriñ bi dundal ko dekkal ko ba jëmmi diine mujj nekk jëmm juy dox ci kër yi ñëpp di ko gis loolu dafa wax ne wa saaka lasi xad jaa wa diinu mayitun fa axyaahu shaqsan fi l amakini machia dafa wax ne sëriñ Tuubaa fekk na jëmmi diine ci boppam faatu sëriñ bee ko dundal ba jëmmi diine nekk jëmm juy dox ci béréb yëpp nga xam ne foo seen diine tey mu soppaliku jëmm di fa dox mu ne loolu ki tax loolu am muy Cheikh Ahmadou Bamba moom moom it bi mu ñëwee dafa wax li ko tax a jóg ndax jëmmi lislaam rek moo yitteem dafa wax ne biatu siwal islam bil islaami jaay naa lu dul lislaam jënd ko lislaam biatu siwal ilaahi bil ilaahi wasaana sirri bi nabi an laahi jaay naa it lépp lu dul yàlla jënd ko yàlla sama borom kon sëñ bi amul genn yitte Cheikh Cheikh Cheikh Modou Diop nee na woon sëñ Tuubaa daal boo ma ko doon laaj dama naan la mooy ki dëkkaale ak yàlla tey xaritu rasulullahi wasaaka jaarullahi in kunta saila rafiqun lil mamdooxi bin nuuni wa najim kon identifié na la joxoñ la wax la kan mooy cheikhul xadim li ko taxoon a jóg bi mu ñëwee jamono it am na ñu fi fekk dafa fekk borom xam-xam yi fekk fi ceddo yi te borom xam-xam yi bu ñu waxee mooy doomi soxna yi di sëriñ si fekk fi ceddo yi fekk fi tubaab bi mu mel ni jëmmi sëriñ si sëñ bi la mu jëflante ak ñoom mooy def leen a wax rek ni borom xam-xam di mel ak ni ñuy jàppee borom xam-xam. mu teel leen a xamal ne daal bari riwaaye yoo solo bari xaddis yoo dégg tegtalewut ngay boroom xam-xam waaye boroom xam-xam daal mooy nga ragal yàlla mu ne inna alladi lam yaxsha rabbal lay laysa bi alimin wala af nal fanun kon doon ko ne matière yëpp jàng nga ko jeexal ko te ak ragal yàlla nekkul ci yow Sëriñ Tuubaa nee bokkuloo ci boroom xam-xam yi ñi fi nekkoon di buur yi àdduna yi it euh, ba ñu ko bëggee yóbbu ca ñoom ngir lan mo waxal bopam ne qalu li yarkan li abwaabi salatin tahuz jawaisa tuxni kull ma hin ñi ngi may wax ne ma demal ci buri aduna yi kat bo demé da nga lambo ay payor ay neexal yo xamne bayiko ci ñom yoy kat dana la soutenir ci mbolé mbir mo nek waye dégg la sëñ bi tontu fa qultu hasbi rabbi waktafaytu bihi wala suraadi al almi wa din sëriñ bi ne man kat yàlla daf ma doy sëkk nak ba nopi te bima yàlla doye dama ko dama man dal ñaar rek la am yitte muy xam-xam ak diine daal di wax nag ne wax ju am solo fa kayfa yabaatuni xubbul xutaami ila jiwaari man duuruhum rawlu shayatin bëgg poñaxiitum adduna bëgg am koom nu mu may yóbbee ci ëtti buur yi nga xam ne seen ëtti yëpp ëtti cheytaan rek la kon ñooñu dañuy daal di féete féete féete côté mu daal di cey teg nag woote yoon wi di atariqatul muridiya tuuma yi gën a dolliku ndax dañuy wax ne ki woon ginnaaw buur yi adduna yi ba noppi soññi sëriñ si woote nag na jox leen ma seen bopp loolu it dafa nekk meneen mbir mu mu yéeme te fekk booba ndigal la ci am lu bàyyi ko ci boromam subhanahu wa taala te sëñ Tuubaa mi doon woo nit ñi it woowu leen ngir boppam waaye daf leen a woo jëme ci yàlla loolu kenn ci mag ñu baax ñi ko toppoon muy sëñ Mansour jaw bindoon na loola wax ne sëriñ Tuubaa daa ilallaahi jallafal mujibi lahu ridan wa naajinu muhtadin ilallah sëñ Tuubaa day yàlla kese rek ci la woote waaye ku ko wujji nag ci yàlla jooju mu la woo faaw nga am ngërëmul yàlla faaw nga am ak mucc waaye faaw nga am nag ak jub Euh, loolu ba mu amee mbooloo mi da wut ci ko bayiko ci wet gu euh tax muy bayiko ci béréb bu mu nek dem ci benen ba gis nga mu mbacké Bawal ba ni mu ñëwee ci dekk mbobu di daru salam nga xamné moy dekk bi mu jëk a euh, bu gatt muy desasin lako ko wasasin mu jël dekk ba jox ko rakam jëm wolu muy Cheikh sidiel Al Makhtar, mamsi Cheikh Anta dal daal di sanc nak dekk bi di tubal mahrusa ci juróom-ñaari at rek la fa def nga xam ne fii jumaa ji nekk moo nekkoon kër Serigne Touba wax nañu ne miir bi tali bi wër jumaa ji mooy sàkket yi waroon kër Serigne Touba amoon na juróom-ñetti kees kees gu nekk amoon na néeg ba mu des kees gu njëkk gi fii ñu ko def tey ñu wax ne fi la ñuy mandargaal ne fi la Serigne fi lañ mujj gisee Serigne bi dañuy wax ne fi la Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mi way Cheikh Sidi Moukhtar mi ganee jamono foofu ci Touba mu sañ ci daarul Xuduus sañ ci daarul Rahman muy kër Serigne Chouaïb mi ñu wax daarul Naar sañ ci daarul Minan di def ay xalawat di dugg fi, di yandu fi di fanan ci wat fi waye mu demé ba ci bay sa sin nag mu dugg xalwa gis yonent bi alayhi salatu wassalam ci kooru bay sa sin njëlbeenu koor gi yonent bi feñu nako ko ak ahlu badrin waye taxul nak señ bi mëna jotti ci mom nak ay kiiraay yu tal yu dox seen digënté señ bi néna na bi mu laal yonent bi alayhi salatu wassalam daf nako laal ma dana jafe nak sunu digënté kat bu fekkone jël nga feppi suuf yépp nos ko péri course Euh, nu mu soree rek soree nañ ñu tol noonu waaye sëñ bi sóobuwaat nag ci not bakkanam ci jaamuwaat yàlla ba ba ñuy agsi ci laylatul xadr ga bi ko yonente bi alayhi salaatu fee feeñuwaatee amul benn kiiraay bi dox seen diggante woomi Serigne Touba ak woomi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñoo sësante nga xam ne amul benn kiiraay bi dox seen diggante euh, foofu yi dafa am lu rëy lu ci mat di jànge mooy rëy bëtug sëriñ Touba ak xam li mu gàddu yonent bi cofeel gi mu am ci moom bi mu gisee sëriñ bi rek li mu ko jëkk a wax mooy yow day li ma tax a ñëw sama yoonu tey wi mooy takkal la ndombal tànk lu rëy mooy def la ngay xutbu zaman bis ni ki tey daal nga yilif jamono ñeent fukki at nag la nit di am door caa yegg waaye yow cofeel gi ñu am ci yow ak seen njàmbaar tax na dana la tëbal ñetti weer yi dox sa diggante loolu yi sëriñ bi ne ko lu neex a ngoog lu rëy a ngoog tey tey nga moom jamono daal neex na waaye am na nag lu ma daqal loolu ali sallallahu salam wasallam lolo loola lu mu doon mu ne ko bokk ci sa gañi rek na ñap ci sa jëm ku la tuddu rek tudduma lolo rek moy sama bëgg man dal awma genn bëgg gu moy lolo yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam ko ah, li nga bëgg de bëgg bari na lolo waye xam nga liko daan may mu tour de rek dafa jeex te amatul te yan la bo xamne ne it nag monsieur su ko yan kenn bam atan ko te mbolem ñi may liggéeyal ñëpp xuddam yi may liggéeyal yep yaa ci gënal te bu ma ci soobu ndax ku ci ma sa soobu bu demee ba ca biir bu buñ ko dimbalewut waxuma la yàqule waaye day alku àll ak ñoom àndal sëñ bi ne ko daal li mën a xew mooy loolu rek a ma gënal sakkuma ruu gi nag waaye jom ji moom ak ngor gi may na ma loo ma yan rek danaa ko wéyal foofee la ko yàlla signalé loole waaye ci biir contrat bi dafa lu ci am mooy suñu borom da ne ko li gën a néew ci daw muy raf raf képp saa yoo ko defee ma xàcc te du ma yem ci xàcc ko waaye dama lay alal maanaam bu la dig jamee nga ne us wala ñu teg la nga ne metti na wala nga ne kañ lay jeex buma ma duma ci dugg xamu woon nii lay demee saa yoo ko ak foo ko waxee rek fa lay tiree mbooleem loolu liggéeyoon ba jeex ma alag la alag ñoo àndal sëñ bi na bismillah kon yan bu kenn mësa yoon lu sëñ naan <clears throat> yan ban yanoon xut bu yàgg ab ya te attanuñ ko moo ko yanu raw gaaña ko la wax xam nga waxul ne lan dane te attanuñ ko moo ko yanu raw gaaña waaye lu ca des dëngañ jiway te watul balaaya suratul laxwaani lam ci laaya nga xam ne li muy yan bi diis diis jàmbatut koorug bay sa sin googu bi sëñ bi waree la daal dem dëkkam boobu ñuy wax Mbakke Bari benn yoon la fi ñëwaat Touba mu bi sëriñ Bousso bi wàccee ab liggéey Mbakke Bari nag nekk dëkk boo xam ne bi fi sëñ bi nekkee xumu na lool xéewal yi bàyyi ko fu ne mbooloo mi yeggoon na ci bu ñuy séddale reer waxtu timis lañuy tàmbali bay julli fajar ndax mbooloo mu bari muy mbakki Bari waaye sëriñ bi tubaab baa ngi koy bàyyi xel te am na lu dox seen diggante ca la yebale rakkam jooju mu wóolu mooy maam Thierno Ibrahim nga xam ne la waykat bi dox ne moo jëkk a dem ndar fa kër boroom ndar bi leexi yaay gor Cheikh Ibrahima Fati ba Bamba soxlaa yow lañ fa wóolu Bamba la wóolu maam Thierno Fati nga xam ne kon boroom fanweeri at la sëñ Tuubaa tànn na demal ma ndar jox ko leetaram boobee Cheikh Ibrahima ñëw ndar jàkkaarloo gouverneur général ak lam jëflanteeg moom yépp ca ñàkk tàllal loxoom nga ngir bëgg caa teg xamal ko ko borom daru xamal ne ko ki ma yónni sa loxoog sama loxo la waxoon waaye foofee la ko góornóor waxee na ko sëñ Tuubaa ay yoon yoon yónnee nañ fi moom di ko woo la ñëwul borom daru na gisuma ndaw lu fa ñëw de waaye wóor na ma ne ko ko woo na ñëw fekk 9 août 1895 tubaab yi kilifa gi mu jëndal ci réew mi yeew nañ ko ba takkusaan ci am péncam ñu door a jëflante 10 août ñu joxe ordre ne dëkk bu sëñ Tuubaa nekk nañ ko fa fekk buñ demee nañ tàmbale ci jur ga jur ga taal dëkk ba ray donga yi jàpp sëñ bi benn muy dund baa mu ñàkk bakkanam 10 août 10 9 août boobee ca guddi gi ci la maam Cerno topp wax set wi yëngu bi ak taw bi wuti mbakki bari fekk tubaab yi yónnee woon nañ expédition yoo xam ne ordre bi ma la joxoon nañ leen ko ngir ñu jëli Serigne Touba waaye sëriñ bi nag euh, tubaab yi def nañ télégramme wax ñu xaar Louga moo waral jeewal campement la woon ñu es nekk Louga di xaar. serigne bi borom daru keroog bi mi waktu waxtu fajar la aksi ca dekk bobu di Mbacke Bari fekk na aljuma joju ci la serigne touba talif xasida hamidtu man yaxsani min darar nga xamne yalla yàlla ma ci bepp lor bi mu julle tisbar ba nopi yonent bi alihi salatu wassalam mo ñew fekk serigne touba fim nek nako man nga waj nak ahmadu imshi wala takhsha darar man nga wëy lor du la bayiko ko fenn senge la ci wet gu nek <clears throat> aljuma joju yonent bi feñu nako wax ko lol guddigu gogu aljuma joju serigne bi bimu julle ge ba nopi tok na ci buntu jakka ji soxna fat jak njaboot gep ngi ko wor cheikh mudum dum ñom ñep muy waxtaan mag ngi na gorom waye la serigne bi jexale wax ji dana yalla dafa am yan mu fi ma sa indi boo xam ne mas na jak rombul sey wom yan bobu la bëgg na dënkul ba aduna bi seen ko waye ku mas na jak yombul ba mu julle ci fajar ga la genn la borom daaru ñu ne ko ak segul bam daatan genn mam ci ron ak serigne bi ko ba boppam waxu jëm ci kër gi borom deru tamali di netali serigne bi tap tapal ko nako Ibrahim dara mutuma wax ndax demb ci ngone ba nga taxawek tuba be cedd yi ci datti mbirub janji bobé ci luga xorondom yi doon yek ci seni tank mang ngi koy gis yoral ma dongay ma yoral rek di lu na nañ ma takal ñu takal ko fa su tudd awnullaahi mbalaanum soy lañ ci tek kero yu wex tal ba melni ni xaalis bi jël tankam bu sel ba tek ca jël loxom tek ci bob Cheikh Moustapha Karim jël loxoom te ci bopp Cheikh Abdoul Fadal dénk naa yàlla ak seen bay Cerno daal di war alhamdulilah moomee daal di gestu borom daarul moxti ne ko Cerno mu ne ko Mbakke mu ne ko rikk na nga muñ rikk na nga gore rikk na nga am jom daal di war fasam woowee fan la jëm dajeeg ñoo xam ne ku mas a dajeeg ñoom dellu si gis nga bis boobu Serigne Touba waree naa roog waram woowu turandoom yi ñu ko njëkk tudde muy bàyyi Serigne Sarr keroog dafa teg njiyam nga xam ne bokk na ci li jaaxal ñu wër nañ ko ba ngoon door koo gis mag ñi jaaxle lool sëñ mënu Moussa toll ci juróom-ñeenteet sëñ Fallou toll ci juróom-ñeenteet sëñ Baara toll ci juróom juróomi at njaboot gépp laxasu maam Thierno Birahim yoon wépp borom dara toll ci fanweer ka mu yaakaar ka mu wóolu jëm ci ñoo xam ne ku ma sa daje ñoom ñàkk nga sa bakkan sëñ Touba Cheikh Amadou Lamine Baaram sëriñ lu nee na sëriñ Touba daa dox ab diir rek Jibril ma wàccoon na ko digg bi jot na Jibril mu dellusiwaat na ko sa borom nee na loo bëgg mu ne ko bëgg naa lépp mu ne ko may naa la lépp nga xam ne teel naa jot ci li muy wut te dara amagut fan la dajeeg nasaraan bi mooy bërëb bi ñuy wax jeebal nettali na sëñ Abdul Karim Touré sëñ Abdul Karim nee na sëñ bi daf maa woo bis ma ñëw mu ne ma dama laa bëgg wax li ma taxoon a dem ci géej gi nee na ne suuti ma dégg am riir sëñ bi ne génnal xool lu mu ca njaareem nee na ma génn ñëw na ko daa mel ni Cheikh Ibrahima Fall mu ne ma nekkoon na ñëw te ñëw moom dong Cheikh Ibrahima Fall ñëw boof sëñ Tuubaa na ko Ibrahima danga maa fekk ma bëgg a nettali Abdul Karim li ma taxoon a dem ci géej gi. mu ne ko mbàkke loolu la ñëpp ko wara xam mu teggil leen seen esaab bu ëdd nag alaxira rekk ba taxono juk da na fofé nak kere bi sama maruk fas wi ne tal ci jéwal iblis ci bopam la jëkk a bopam muy xawé ko iblis di wax ne mbeur mu fi mësa ñew dama damaa ci yow kula daan ki di ñew nag kenn doyu ma ci sa bop rek señ bi ne may ma diko jox xarbi naan yow kenn ci yow kuma yalla sama borom subhanallahu wa ni'mal wakil neena fofé la wal dana ci samay tank darek mané nit ci dox mu ne woy nama botek teggé dutuma la songati mukk yel yuma dugg ya ca gëna tuti la waaye yaa gën a dëgëral loolee la amé won ci jéwal ay samini la inda jéwali iblis isnadaytuhu biya wali nasran bi serkale señ tuba mu wacc lal darba, kabar luñu japp ñu japp né mom mi kët da bëgg déllu dellu ndax joxé nay loxom fekk ndigalul boromam lay xaar julli ba jéxal def la ko lam wara def yépp bañ ko dëgmal see ñëw na ko ndigal li ñu jotoon mooy bul yendu fenn bul fanaan fenn lam ca teg mooy ndigal li ma jot sama borom mooy fanaan ndam li jëkk am sëñ Moussa Ka nee na masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca jëy sa sin ñu woon ko fa lay xaloo xew ba dem Touba nee manoon naa wàññi koo fa waaye kon doom mayam yi mu am sëñ Touba jeewal la tëje làmb ji daan tubaab bi billahi faaraqtu nasara jeewali wa gayrihim qat an bila tanawuli nee na giñ naa ci yàlla jeewal laa tàggaloog tubaab bi faw ci lu dul may jëfandikoo benn gànnaay waye gis nga fi seigne touba wouté ñep dana law laa khafu bay adunya bil akhirati la ahlu badrin ajana cey buma ma ragalutoon aduna wi ahlu badrin danañ fagaagal touba yi ban jeex waye tagg aduna wi lay bañ fofé bam julé fajar la sendamal kokki ca guddi la jog ñew wut si bi ñu wax lugo tambali won nos nak asma ahlu euh, badrin ba mu ñëwee Louga Fi fii gaar bi nekk garu lugo bi nekk kaddu gogou fa la Seexul gis nga bo ca kaddu ga barrière yu vert yoy ci kanam fa la defone bagage ya, denkon ko seigne bara fatimbo seigne mohammed Lamine gay ba mu julle takusan rek la di dugg nga xamne 12 août di alterner di fukki fan di ñaar fukki fan ci wéro safar la Serigne Touba fanani ci dekk bobu nga xamne modi moo euh, ndar lan la fay xaar moy ño xamne ne nañ seeni pexé pexe nañ seeni lepp lépp Serigne Touba sax fa ci fukki fan yi manki ñaar luñu man luñu xam ci coono ak fitna ñu def ko fa waaye Cheikh Ibrahima Diop almashari da ko wax ne ko laqad aqamta bi ndar xiinan tazilu biha daa a dalaali min ahli shakki wal fanadaan fa ndar daal sëñ Tuubaa de fa la daaneele fen fa la daaneele bakkan ak bànneex ak seytaane ak àdduna rëgët leen moom Cheikhul Xadim taxaw foofee may fa diine lislaam ndam ñaari jaloo la yu mat di nettali ñu ngi nettali julli gëm fa julli ca kanam góor nóor waye xolal nak tontu lam tontu gouverneur général nga xamne ken musuko ngeme wax ken xalaatu ko woon mu taxaw ci kaw mbolo nga xamne tay magalu màggalu Touba bu ñëw se bu ñu tuddé Serigne Touba la serigne abdou rahman Mbakke serigne Abdou Khoudous doon wax ne hubbul khadim ala sudani maftaridun id harra rasul min raqil mudillina neena bëgg serigne Touba de nit julli waré koor waré ko non la waré nit ku ñuul ndax serigne Touba dog buumi njaam may nit ñi indépendance ñu moom seen bop fofé tay ji ñaata jàkkaa nekk Sénégal ñaata jumaa nekk Sénégal ñaata nit ay julli fu ne nit di fa taxaw mbedd yi di riir ku waral loolu Cheikh Ahmadou Bamba ndax kat ba muy wax ne uwaxidu llaha wa lastu ashraku shay'an bihi hiina shiwa yushrak ba may ber yàlla di ko wéetal jamono ba ma koy ber ak faa ko doon bere ku dul man bokkaale na yàlla dara keroog te foofee day am na ku fa taxaw ne maay yàlla maa yor mbir yi nu ma neex laa koy doxale ana mu dabirul umur la waxoon kenn tontuwul Cheikhul Khadim képp ak tuutaay ba Cheikhul Khadim képp ak at yu néew yi ci zahir cheikhul xadim képp ak wéetal yàlla ga moo waaxul boppam ñaadam ñaadam tànk yu dëgër ba fekk góornóor fa mu taxaw mu jël loxoom bu sell ba teg ko ca jéeb góornóor ba diggante kasket baak jéeba di ko gësam na ko kadabta mu dabbil umur xayun laa yamut wa satamutu insha allah ko xaribun xam nga ne kàcc nga kat waxuloo dëgg aji bind ji mooy yàlla dafay sax dàkk di wéy yow sax sa dund la ci daa bëriwut xam ngeen ne la xew ci góornóor ba lolu tax mu doli ci lii baana kaw ni umuri li sarif al maut ila al kookee ko ke ko don di diko fonto te at moomee la faatu sëñ Tuubaa na nekkal gima nekkal yàlla wóor kere bimu jele degi jeme ko ci góornóor bi waye amana lil bakhil si laysa yamut wa kullu man qasada durri yumit yàlla mi aji garantie moma garantie arma kep ku jóg ngir beug ma lor man seigne Tuubaa dang fi bayiko kon lola gis nga jàmbaar googu Cheikhul Khadim wone muy wetal yàlla fo fe ci biro góornóor ñu jele ko fa andi ko Ndakaaru bisub al khamis ak àjjuma rek a ci desoon ñeen fukki fan yi manqué ñaar mu fanaan si fii ndakaaru kero bi ñu ko attee ndar 5 septembre nëbb nañ ko foo xam ne kenn xamutoon fu mu nekk ku du Cheikh Ibra Fall nga xam dañ ko delloowaatan ci jardin des muy foofu ñu ko boole woon ak gi di xew-xew bu yéeme ca ndar gaynde goon boole woon ak Serigne Touba Cheikhul Khadim ñu jëlee ko fa indi ko fii mu boole xiifam ba boole coonaam ba bi muy wàcc ndakaaru dok lu néew ci des ndax dafa boole woon ngoor kooru ngatt nga am moo waxal boppam jissaw sakur al atuuf fi Abdul Latif muy téré bi talif taalif ci yoonu geejgi mo ne bimay aksi waxtu doge ngi bëgga jot ma tok na aka neexon ma am luma ma sama koor ngi dundu sunna waxa mbane daw ñewnu ma dem am neega nga ne neex na noppaloo bu demee nga dox fa sa koor sëriñ bi neena la lekk lépp ay neen la neeg bu tang neeg bu lëndëm neeg bu bari sobé neeg bu bari ay melokan fofu nak am luma la waxon ci jàkkee daru khulus ja ca jaayante ba feñ na fofu kérok bi ku tedd ki bi ñu neeku neeg baangi ni mu jàpp ne béréb bu mu ñu ndogoo la ndeke ndiig boo xam ne ay ràbb ki xottu bi di la fa nekk ba mu ne jëyi tànkam ba ci ràbb la ko teg delluwul ginnaaw da koo bës ba ràbb ga set ci ginnaaw mu geneen teg beneen bi ñu tëj ko ci néeg boobee boole ko tàngooru bàyyi ko fa euh, Cheikhul Khadim lan moo xew keroog yàlla yónni Jibril na ko xoolal ma xol ba lu ca nekk xoolal ma xol ba lan moo ci nekk nee na mu ñëw na ko xol buy sant bu muñ ca ko teg laa gis boo rafee ma xàcce ngoog de joggi ne ci xotti bi la kirab keroog mënta sujjóot ngir tartar julli mi rek junju rek la doon def ngir amul fenn fu mu taxawee waaye teewul mu ne tanzilu man min nii lahul adkaaru mahal la si waqaxa fi ndakaaru mboolem lu ma naqare woon ca ndakaaru de alquranu karim rek moo ma ko teggil dégg nga ñu ne yonent bi alayhi salaam fekk na ko fa dégg nga ñu ne soxna jaaratullahi ma mariama buso fekk na ko fa na ko maay sa seere keroog bi nga feeñee jamono nee nga da nga jëfal yàlla loo ko kenn mënta jëfal ba li ñuy tubaab bi exilé Serigne Touba sëñ Moulay Bousso nee na bi ixraaju xutbil asri isbaana annahu yulinu quluban ba'da jami shawaridi ci kaw tuuma rek yorul jaasi yorul fetal yorul benn gànnaay tumuraanke ci kanam yi noonam menn moom képp mu tàggoog ñëpp fii fi Ndakaaru la waxe Cheikh Ibrahima Fall ana lam atab ilaa li xidmatin xumtu biha wa silaahuha fi asa safar faqat maa ngi dem di wuti loo xam ne tok du ko maye kenn munu mako jox lu dul dem ci géej gi liggéey rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye waaye bu ma deme ba ñëw yéen ñep da ngeen jariñu wetal bopam Abdoulaye Salim ibn al Hanbal neena cey bamuy dem gharibun lada jundil aida wa silahuhu midaadun aqlamun turayish bi shukri saatu rek la yoron sum non doon sote xalimaam xalimaak da rek la yoron yuru dara tab ci bir nonam yo xamne ne seen pexe yep seen khalat yep moy éliminer ko rek jenn ko aduna xam ngeen ne Serigne Touba ci bir nonam ya tàbbi ca biir fekk waxoon na ca nar ne xusuur yi xalat wal ahlu an ni tafaaraxat li ma dexilati anhul ma diw xasiiru man de teg nañ may tuuma ba génne ma samay kër gent na samay sàkket daanu na sama njaboot sori nañ ma gisatuma kenn Cheikh Moustapha gisuma ko gisuma Cheikh Abdoul Fadal gisatuma Thierno ñam àndal ñëpp li ma ko yóbbee nag li ma dexi ladi anhul ma dihu xasiiru rasulullaay képp laa am yéene liggéeyal te lu ma natt ko solal dana mu gàtt te du bàyyi mukk te sa mbërtalut jaral na ma sama bakkan bi lu mën xew ndax rasulullaay ma gën sama lépp soobu ci géej gi ànd ak nasaraan yi wax na sëñ Mbàkke Juuf na ko guddi gi ma jëkkee fanaan Gabon wéet naa fa ba mel ni néew boo tàbbal ci ba meel ay bokkam ñibbi te dajuma fa lu may njaqare guddi gi ma jëkkee fanaan Gabon kenn fittilu Sëriñ Tuubaa lu mu àndaloon rafiix yi kitaabullah wal Mustafa si kenn lekk laa àndaloon muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alxuraanu karim ak saxaaba ya ñooñu laa àndaloon ñoo ma wéttali ci sama tukki bu sori bi ma defoon liggéey rasulullaay mu sax fa samaani yaxjajin ila qalila juróom-ñetti at yoo xam ne gisul kenn di fanaan biti di tawte di xiif di mar di woor ke xoolal keroog bi mu taalif yaa xayra def ci mille mille trois cent quinze koor ba ngoon amul ndogu amul xëdd nan la def dagg xobi garab te ko sujj sujjal di naan ndox mi di yàbbi garambaay gi amul ku ko toggal amul ko koy jox te téewul mu koy tatagal yaa xayra dayfin ata bil bichir wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi bu ko fa gàmm fekkee amul ko jàppale koor fekk na ko fa mu jëndub xaal ku pëti ko di ko loge koor fekk na ko fa mu utub ñam bi di ko ŋarañ ñàkk na ko bay jëfandikoo am ñax sëñ bay jaxat nee na ko ba ngay mosum ñax amoo loolu ñax ba ngay wéete kay muñ akay dund ñax fa yéefawee nga xam ne ko ñàkk na mu jëfandikoo fekk na ko ca béréb yooyu mu sax fa simaane yaxi jajin gas nañ kàmb tabbal ko ca boole nañ ko gaynde fekk nañ ko muy bind ñu jëlub dawkat jal ko ci kawam wax nañu ne kero bi muy bindaat wala xadd karam naa moom sëriñ bi dafa am benn nasaraan boo xam ne dafa wut ab dawkat ñëw fekk fi sëriñ bi teg kayitam yi mu jal ko ci kawam nee na ma ngay maase la tànk ya ca kayit ya sëñ bi ne ko xuuskal ba ka an xirtaas yi tee nga téye sa waa ji sama kayit yi mu ne ko man de loo naqar rek laa bëggoon moom rek laa doon wut am naa ko daw delluwaat nag jëli gurdu xaj nak ñëw jal ko ku tedd ci Cheikhul Khadim sëñ bi jël xel imam ga sëpp ko ci daaja wéccax ko xaj bi jëk mu ne jàppi tak mom la sëñ mu lay bu sëñ wax na atabi kilabin kilaabin mutaxin max fa faaraxa bi naari masul ko waaxinim loolu lépp lu muy wane tabal nañ ko ci kambu wa alqahu bi biirin ka khabri li day xixi sëñ mu lay bu sa tabal nañ ko ci kambu go xamne ci gabon mok bammel ñoy ñoo ñoo yam ci xataay te foofu kat señ bi waxal na bopam ne keroog bi ko tuba bi tabalé waxal na bopam ne radama rabbi yamaudi wi hafar li darari wa saanani aman kafar yàlla faral na ma yëpp lor yu tubaab yi doon pexe keroog bi ñu gasee kàmb googee jëlu kàmb gas ko ba mu xóot taal ci sawara mër mërmëla ci dara na sëriñ bi béréb bi neex naa toog sëñ bi waaxu wut si ko rasulullahi na ko néeg ma sëñ bi na tekk ab diir nee na tubaab yi keroog ñooy wax ci seen làmmiñ ñu bopp ne ku dëgër bopp la waaye ngémi wut sëñ bi leen tontu na kàcc ngeen nee boobu rasulullahi ne ma xaar ma sëñ bu ma goree dinaa fonk alxuraan téere bu yàlla yónni keroog fekk na ci kàmb gi alxuraan na ma jiitu na wër ma wet gu nekk ba ma fa tabbee sëñ Tuubaa nee na li ma wax nit ñi naa leen bakkan bu mu mus dund dana mus dee ba mu des sama bos damaa musoon saa wàll bu yàgg nee na kàmb googee keroog ñu bari jàpp nañ ne falaa sax saa borom moo ma fa jëlee yóbbu ma bar sax na musal sa wàll ci faatu mu ngi nii danaa yëgal adduna bépp ne aji dund ngay doon te doo fi jóg yoo allimul xayi ladi lay sa yemut alxalq inni abadan la sa amul béréb boobu doyul ci moom coono bu nekk di ko fa fekk muy buun ak ndawal di ko bëgg ko am dama ci irwaaw na di Cheikh la muy jub a nii mu jël ay jeun petit jardin diko mus nopi raxaso sa bok suuf taxul xet ga dañ mu soobu cim tag rasulullah yonent yàlla boromam nako bo boo bàyyiwul jëfandikoo lu melni nii duutoo gis rasulullah señ bi jaay jeun wu mak ak jeun wu ndaw jëfandikoo tu ci dundam neena fofé foofee nañ ko mom señ Touba lu melni ni bo demé ci maj mo xam señ ci liba dang ko fekk neena mu mus mu tak ci la ñam señ bi nee ma gallaxndiku neena bama tambalé rek laa dégg mu ci wat na ma kat boo bàyyiwut jëfandikoo lu mel nii danaa dox sa diggante dutoo gis rasulullahi nee na fa azimtu fil xiin ala jaxliha min al mabiat nee na ma daal di dogg na ma jaayee jën jaayee ko banaana jaayee ko pom ma dogg ci jaay bàyyi dugub ba faw dutuma ko jëfandikoo yàlla na ma boo ko bàyyee nag may dutuma saxal benn pepp ci kaw suuf kon gis nga loolee mu doon dogg ci béréb yooyu na mi mel sax fa ci coono yoo xam ne béréb buñ ko yóbbu diggante Libreville diggante Mayomba digënté lambar na xol ma yomba moy bëre bi mu gën yàgg juróomi at la fa def néna amna bis mu tok ba yàgg rek mu wax ci xel mi ne man de fii yàgg naa fi waxu ko sax ci làmmiñam waaye bi mu ne ci xel mi fii yàgg na fi néna liko yàlla fayé moy jëmmam la soti bam fess del ak melantan ablay Abdoulaye Salim ibnul Hanbal moy ma doon wax ribun la junti la ci xassidam goge ma nga nan namlun lun ka misla riqaabil juufi fi alamin nee na benn mellentaan bu ñu toll nañu ci jub ginaar sam jëmmi sëñ bi di ko mat nee na mu tàmbali tuub nee na ñu gën a bari mu ne naa sant nee na keroog laa jaay lépp luy jàmbat na soxtu bi sukkur si kaay den loo fa la askuloo dula wa dula afala keroog laa bàyyi jàmbat lu ma yàlla tegati neex na ma muñ loolee moom Cheikhul Khadim sax foofee ci béréb boobee nee na lembar na lu dul ruugu génn ci aw yaram daj naa ko fa lu dul ruugu génn ci aw yaram daj naa ko fa moom Cheikhul Khadim coono bu nekk mu daj ko fa ci géej ga di liggéey rasulullahi salaa alayhi ci ay guddeem ak ba bëccëgam di ko tagg lu metti du jàmbat gisul kenn ba natt bi ko tubaab yi mu a def mu door a ñëw nag ci réew mi di Sénégal muy ban muy kero bi ñu jaaxle ci moom dañu ne nag léegi nañ ko fetal buñ ko fetalee nopp lu ci moom jël fukki soldaar ak ñett jox leen ay fetal jàmmaarloog sëriñ bi euh, joxe ndigal loo xam ne bu ñu jotee ordre 5 3 5 4 3 2 1 0 na ñëpp teqandoo seen i bal jox lieutenant bi pistolet ngir bu noppee mu am ci cëri feneen fu mu ko dóor kenn ku rek nekk ay jamkat yoo xam ne kenn du mooy nee na ma gestu sama ndeyjoor du kenn du mbokk du doom sama càmmoñ du taalibi du kenn tabaaraka rabbun lii xadal xaaja wax dahu faqiran xariban ila galaw ba afet kenn dimbalewu ma kenn wéttaliwu ma ku dul yàlla sama borom rek moo ma wéttali keroog moom Cheikhul Khadim soldaar yi jàkkaarloo na ko ndax ñu takk say mu ne leen matu ko de ku fa nekkoon di ko dimbale kenn mu wéet ñu jàkkaarloog moom di xaar cinq 4 3 2 1 0 biñ teqee seen i bal kenn ku ne sa balu fetal dafa wëlbatiku au li que mu jëm ci sëñ bi waaye ci sëb dënn la daal nga daanoo njaaxaanaay Serigne Touba noo xamante ne bi sub talaata la moo noo xamante ne fukk ak ñett la ndax moo ne waxabani la waxabu fi talaata maa yox juróom ashrata wa salaasa yàlla nag jël yëpp jox dajale yëpp jox ko na kon mën ngaa waaj te dellu ci réew ma بمين يبي سبب سر الكلام لا نالي شيخ إبراهيم يجيب المشعري نانكو لقد رجعت بما لم يرجع النبي دول الحج والغسل أو تجري من رفدي وجئت رحمة رب الله شريك له لظالم وأقي سبق ومحتسد شيء سنتوبا بيجي نبي سيدي بنسري تنجا نالي نتمنى أت مكة بأم يول بطل نسيتو كبير nit mënta jihaad ci lislaam ba am yool bu toll nii si tukki bi nit mënta yaxantu di jéggi dex ba am bénéfice bu toll nii da ngaa jikk di yërmande yàlla ju daj ñëpp yow Seexul Xadiim moom nga andi sa tukki bi loolu nga andaale lu wom mu ñëw ci réew mi diir bu gàtt la fi def juróom-ñaari weer ruuxale yi tàmbaliwaat sëñ bi bàyyi ko waat fi demaat gànnaar def fa ñeenti at diir bu gàtt ñu jëlewaat ko fa yóbbu ko Ceyeen ba lësasin nag Seexul Xadiim tubaab bi waajaat ne nañ ko jëlee nag andi ko euh, njëreem te da nga xam ne gànnaar metti woon na na nga xam ne ceyeen metti woon na ndax béréb yu tar la woon ceyeen béréb bu manqué woon ndox la nga xam ne amuñu woon lu ñu doon naan mais yegg nañ ci ne keesi Serigne Touba yi foo ci gas rek man ma fekk ab teen te am ndox mu nu fa war a am bañ ko jëlee lësasin nag mu ne raamu masiri ilaa jurbe la daa lësasin law ayaroo sirrama fi séri ma raamu ah yëf yaa ngi bëgg a kii de yéen a ngi may jëlee ceyeen foo leen ma jëmee njëreem s boo xamoon liy xew fi la ndax yéen njéeréem ak dee ak torox lay doon ci yéen man ak yëkkati ko aku sax lay doon ci man sëñ Tuubaa ñëw njéeréem ba tal sa sin ci la woote màggal gi 1921 la Cheikhul Khadim woote màggal gi ca njéeréem asañ na ko di nee na damaa xëy rek di xaar balaa na nga xam ne fukki fan ak juróom-ñett ci safar fu mu mas a jote natt bu yàlla teg sëñ Tuubaa bu dee benn da koy dolliwaat ful ko sëriñ Tuubaa natt bu ko yàlla teg da koy ful ba mu gën a dollikuwaat waaye nee fukki fan ak juróom-ñett nag ci weeru safar ñëw nag ci atum tëlsasin may xëy di xaarum nattu yàlla na ma nattu jeex na takk takk takk balaa jeex na takk takk sant rek a des kon an ittafat madarati wal balwa bi fadli muxlin li xaadal xulwa lahu shukuri ila aljannati daaril muna wal amni wal minati yashkuruhu kulliya bil kitaabi bila muaadati wala xitaabi sant rek a mu tàmbali nag woote bi su santam bi joxe woon ci ndigal dañuy wax ne taalibeem ba mu wóolu woon mu sëriñ Balla Fally Dieng nga xam ne sëñ Modou Diop xala woolu mu wooloo ko sëñ Balla Fally euh, sëñ Balla wax nañu ne bis bu njëkk gi ci màggal gi sëriñ bi jox ko ndigal mu joxe ndigalul yëgle ne sëñ bi bis bi ngeen doon am na sëñ am sutu sëñ Modou Diop kilifa yépp waajal nag ndigal loolee ci màggal gi sëriñ bi wax ci wax ju yéeme wax ne ku ma ci santale yàlla lu ma yàlla may lu ma ci yàlla faye ba ëllëgee nu bokk daal di wax ne ëllëg yomal xiyaam bu ñu demee ba tàbbi àjjana nga xam ne guddeeg bëccëg amul bu bisu màggalu tubaa dellu siwaatee jëmmi àjjana day soppaliku taar ak bànneex ba ñuy laaj lu xew ñu ne bisu màggalu Tuubaa gee dellu siwaat gis dañ amal ci àdduna سن بير وخنا ان الذين شهدوا المحرقه وجاهدوا الكفار المشركه ولي نوال كلهم يحوتون وكلهم زائر الوطن مولم كما سا رسول الله اب خيخ يالا ماينما لوما نيب دي نيي با ماغال دي نيو دي ما شارش nga xam ne la gën a yéeme mooy sëñ Moussa Ka ne na yàlla day yabal malaaka mu tudd waali ci bisub màggal gi nga xam ne li may wax ne buñu nee dañoo yabal ministre de l'intérieur ngir mu teewe màggalu Touba yàlla yabal na délégation ka muy yónni waali la tudd te moo leen xadratu xutsi bi maanaam màggalu Touba firi yi la ci ñoom damay wax ne lu waay liggéey rek ci compte sëñ Touba lay dellu ci màggal gi ndax màggal gi moom lépp noonu lay demee mooy lu waaye di jëf rek dañ naan tey jii bisu feet la ndax ni ndamul ndamul islaam la ndax ki ko waral mooy ki jeexaloon dundam gépp na xayaata bi maa yurdi ilaahi wa ma jaa ar rasulu bihi mafrudan wa masnuna kooko tey moo woote ak magal moo tax Serigne Moussa ko wax ne yéen gaa yi Bàmba déglu leen Moussa murid bi woo na leen ndaw ak mag góor ak jigéen nan wujji Ahmadul mbakki magal gi laa leen di xibaar yéen ñi xamut te di xiyaar te nar a dem defi siyaar ngir jëmmi Ahmadul Mbacke ñenti fan ci aw safar na ñépp jóg di waaj li safar ngir bàmba raabiu safar la waaj li ahmadul makki murit ci màggal sëriñam lay amee léppi ngërëmam ba mujj jekki fa këram di nuru ahmadul makki kon nun bu kenn yàqal màggal gi ndax ginnaaw màggal sëriñ bi moom ca ngay amee loola kon nun dañuy màggal sëriñ bi ci lu mu bëgg wa man yu xasim xoramaat yàllaa ko wax lii du poraat léeg-léeg sëriñ bi day royaat ci leeri ahmadul makki bi qadri ijlaali shuyuux la bamba wax ba ñépp seex ku màggalut sëriñ du feex doo seeru ahmadul maki mu daal di wax nag ne sëriñ bi kon njaareem la jëkk a màggale njaareem sëñ Moussa Ka wax la jëkk a màggale ci tël sa sin la àggale fii la nu bamba jommale ca yàlla ahmadul makki njaareem la jëkk a màggale ci tël sa sin la fii la nu bamba jommele ca yàlla ahmadul makki kon njaareem la Serigne Touba jëkk a gàm mm, màggale mu ne kon màggal gaa ngi noonu di di di bis boo xam ne bisub ngëneel la bisub tawféex la bisub xéewal la bisub ndam la nag loolu lislaam du màggalug murit rek du màggalug murit rek màggalug dañoo waroon a wàcce drapeau yi férié yi xutbay imaam yi imaam yépp xutba yi fu mu waroon a jëm cey ndamul lislaam léegi-léegi ñu ne man Mandela ni mu jàmbaare woon wala ñu ne diw de wàllam ni mu jàmbaare woon réew mi di wa taxawoon ñaan indépendance di wa taxawoon fii bañkat la woon côté politique lim liggéey ay xat an xasa suuda min jeexlin wa min keselin cey der bu ñuul bu amee indépendance grâce à Cheikh Ahmadou Bamba tey ku yor der bu ñuul rek magalu Tuubaa magal ko war na la ci sa alal ci sa xam-xam ci say xalaat loola mooy jom de te mooy ngor nag footballkat ba sax bu daanee moroom ya dañ koy maanaam footballkat bu daw dugal bit fukk ak benn du mooy onze ñooy doon équipe bu kenn dugalee da gaa yi daw wëraloo ko tapp tappal ko ngeen ndam la waa l'islam jóg leen ngeen sargal ko la Cheikh Sidi waxoon Cheikh Sidi nee na man duma ma sargal l'islam du ma sargal sëñ Tuuba ku may sargal mooy l'islam Cheikh Sonde bi nee na l'islam daay sargal lu tax nee na l'islam a am ndam l'islam a am puukariwu l'islam a yëkkatiku lu ko yëkkati mooy Serigne Touba moo fekk l'islam ci biir ay noonam sëñ Tuuba na ko panget delloo siwaat ko en 1895 day ndar gii képp bu ñu daan nodd ci ay collège lañ daan fëgg kenn ngi ma wutoon nodd tey fu neex nit nodd fu neex nit julli tubaab yi dañuy waaru adduna bi day jaaxle adduna bi riir ñu ne lu xew ñu ne màggalu Tuubaa mbokk yi bu kenn jàpp ne feetu murid rek la bu kenn jàpp ne yëpp sëñ Tuubaa ci joxe ndigal te ayca rujuan ila qawmi ñëpp a ca bokk saadatina wala takfina yow ma jamal xal niiraan te sëñ Tuubaa bu dellu si waatu toon tubaab bu am ndam kon nag a ku mën ku dajeekum nasaraan ñàkk bakkanam ku mën a màggal ku daanu ci xuru xare nungu njàmbaaram ka dem ba dil siwaat yëkkati loxoom ca kaw bakku na maa daan maa man maa raw yàlla naa bokk ak ñëpp koo xamata màggal le képp ñi a ko war a def jullit ñëpp àndandoo ñu ne waaw lu xew ñu ne dañuy màggal màggalu Tuubaa xam naa bokk yi ñuy ànd ak ñun di seetaan jataay bi mën nañoo ànd ak ñun rek ñu barkeelu ci ay kaddu 88 628 08 18 boo ko defee euh, lépp rek ni ñu ko waxee mooy mooy ci euh, programme euh, préparation màggal gi ca jaajëfal Cheikh Amadou Bachir Mbacké waaye di jaajëfal sëñ Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma sëñ Amadou Saloum Dieng ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant di jaajëfal bi ñoom ñoo ngi leen jaajëfal bu baax Euh, ci jotaay bi ak liggey bi nga xamne dañ koy amé mo waral tay sunu sunu sunu jotaay bi ak sunu togaay bi ñu ñu seq ak yeen kon ah, am bi mbokkum alaykum assalamu alaykum asalaamaaleykum alaykum alaykum salaam wa rahmatullah ah bismillah mbokk mi ku bax ku foy wote tour wi sëñ gànna mesra mbak yaaram noo ngi lay siyaare bu baax ah ku baax kooku kii de sa mbokkum taalibe la de sa waajur muy Serigne Makhtar Ndiaye moom Serigne Mbacke Madina. ah Baye Makhtar maa ngi lay ziare Ndiaye sama sama soppe Baye Makhtar. maa ngi lay delloo siyaar bu baax gànna. Ndiaye yaaram Ndiaye. di sant yàlla di julli ci bi nag waaye di sant Xaadimu Rasuul. wallaay wallaay Ndiaye. di la xamal ni. Mhm. yow day yanan la yàlla fayal. amiin amiin Ndiaye amiin Ndiaye. li tax nag teg naa ko ci yéen la ju wér. Mhm, mhm. nun amul dara dara dara lu mooy Serigne Touba. wallaay wallaay wallaay jaay. Mhm. te nga dinu ci nàndal dinu ci nàmpal dinu ci wan loo xam ne lii dinu ci xamal loo xam ne lii wax dëgg yàlla bari na ku doon wax ci sëriñ bi waaye àggul fii nga àgg nag alhamdulilah alhamdulilah te damaa jële ci ku baax moo wax ma ni mhm. li gënal sëriñ tubaa ci li des ci jamono mhm. mooy fexe ba ñi nga xam ne dañoo yaakaar Serigne Touba riir jëm ci moom mhm. képp ku leen mën a fexe ba seen pastéef ak seen yàqiin ak seen wóolu seen bëgg jëm kanam yaa defal sëriñ bi li ko gënal ci lim doon def lu alhamdulilah rabbil alamin kon yow mii bokk nga ci faculté fi sëriñ bi alhamdulilah ndax lii ngay def kat mhm. bokk na ci li nga xam ne nun dongoy sëriñ Tuubaa yi nun jëriñ nanu lool ndax yàlla alhamdulilah màggal gi nag mhm. ñaari yëf rek laa ciy wax mhm. képp koo xam ne ndar nga am yërmande yàlla mm-hmm. da nga jéem a màggali mbaa nga bég ci màggal gi mbaa nga jéem caa def mbaa nga jéem cee xalaat mm-hmm. Mm-hmm. ndax màggal gi dey jële nañ ci ku baax muy Cheikh Saliou Mbacke yal ko yàlla dolli dimbal ak yërmande amin mu àgg ci nu ne àjjana day amul guddeeg bëccëg ak heure waaye waxtu wu màggal gi ñëwee mhm. des na ko waajalaat neexalaat ko gëttalaat ko ba ña biir àjjana dañuy wax ni mhm. waaw lii lu xew mhm. sunu borom wax leen ni tey jii de mooy bis ba nga xam ne ci la xaadim bu rasuul doon sante boromam moo taxoon ñu defal ko ko lii te sëñ Gana Mbakke képp ku xëy sa kër ni da ngay bis bi nga génn sa kër jëm Touba. Mm-hmm. ba muy dellusiwaat si waat déwén. Mm-hmm. kenn du la bindal bàkkaar. alhamdulilah ci mm, loolu wax wax ju biire nag. Ah, waaw ah, waaw waaw. ma ne na ko tekki waaye day yaatu waaye wax ju biire gu noonu. dëgg la dëgg la Ndiaye. Mm-hmm. kon daal sëñ Gana noo ngi lay sant. ah alhamdulilah Ndiaye ah, sant nañ baax Baye Makhtar yow de moom sant nañ baax. gërëm alhamdulilah. képp ku jóg ni da ngay màggali dem yàlla sàmm te aar la te la nga ba di ko sant yàlla defal la ko. amiin amiin amiin amiin Ndiaye amiin Ndiaye. sëñ Gana jërëjëf. jërëjëf Baye Makhtar jërëjëf jërëjëf Ndiaye. noo ngi sant bu baax. alhamdulilah ndeysaan jërëjëf jërëjëf Baye Makhtar Ndiaye moom sëñ Mbacké Madina moom it eh, di way jur di kilifa gu baax ndeysaan yàlla na ko yàlla dolli kàttante dëgëral ko eh, bu baax a baax moom it dafay gën a dalal sunu xel jamono bu nekk ndax wax ji moo xam ne dama ko nettali ci ab conférence bu ñu dajewoon fële ci eh, RTS noo ngi koy sant bu baax a baax moom Baye Makhtar Ndiaye moom sëñ Mbacké Madina kon 88 628 08 18 ni ñu ko waxee woon léegi rek. aleykum salaam. Ah. bisimilah. asalaamaaleykum. suñu jaar na waaw ku baax kooku. ah bisimilah sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall. maa ngi dëkk Louga. waaw na def ana bokki Louga. bisimilah sëñ bi. Euh, mbokk moomu daa mel ni dafa ci kon noo ngi sant mbokk yi féete Louga yëpp euh, di leen jaajëfal ñoom it ci seen pësiyëf ak taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy am ci wàccaayu màggal gi. ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax ci yittewoo gi 88 sero 10 08 18 ngir wàccaayu màggal gi ni ñu ko waxee woon léegi rek lépp jëm ci euh, taxawaay bi nga xam ne Cheikh Abdoul Bachir am na ko ci màggal gi waaye sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké. salaamaaleykum waaleykum salaam. waaw sëñ Gana Messere. Mbacké kooku wax kooku. soxna Ndeye Taïf ñoo ngi ziar bu wér. ah soxna Ndeye na leen def. sosoppe bu la sopp lool ngir Touba ah jërëjëf jërëjëf wax dëgg yàlla waxtaan yi ngay waxtaan ki sëriñ Touba moom masha allah yal na la yàlla suñu borom la fa cat te yokk xam-xam bi amin bak seexul xadim bak seexul amin soxna nday moom daa mel ni moom rëcc na noo koy sant baax moom it di ko delloo ñaan yi nga xam ne mi ngi ko doon ñaan yépp ni ñu ko xam ngeen ne comité bi taxawaay bu am solo la am yëf yi yaatal ko rek ñëpp bokk ci ndax màggal gi wax ne bu borom alal rek la ana borom xam-xam yi bu dee borom xam-xam yi rek la ana borom doole yi ñepp ci bokk ki am alal ki am xam-xam ki am doole ki am bëgg am yéene ki am yépp léppay ànd rek lañ bëgg doora a loolu Cheikh abdul bashir xam ba tax jamono bu nekk. asalaamaaleykum alaykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi ziar sëñ Gana. waaw ku baax kooku sëñ bi turu ak fooy wootee. aliyun barara Sall taalibu Serigne Petit waaw ah, sëñ Aliou Badara noo ngi lay siyaare bu baax tubaarkàlla. delloo alhamdulilah. sant nañ bu baax a baax a baax ci safar bi. Mm-hmm. waxtaan wi ni ko tënkee ba yegg si nag ci fan ak juróom-ñett yi nag ci njaareem nag muy xaar eh, ay mbugal ak ci coono. Mm-hmm, mm-hmm. ñu ne ko yëpp jeex na nag. tey wallaay wallaay Mbacke ma ci ne cëm. Mhm. leeral nga ko bu baax ñu bëgg ñun nag safar. muy mhm. jub dafa am lu ñuy yëg suñu yaram. dëgg la dëgg la. dañuy xam ni ñun léegi nag mbégte mi ñuy àndal. Mhm. amul benn feet ci yoonu lislaam bu ñu yëg. taalibe yi nag dañuy jax nag commencé nag. fas yéene sant le sëriñ bi bés bi mhm. ñu cindi ko waxee mu doon mhm. loo xam ne nag lu ñuy yitteel la ndeysaan ndeysaan ñu ñu war a jàpp bés bi nag comme ni nga ko waxee ne mhm. indépendance Sénégal ak der bu ñuul fukki fan ak juróom ñett la ci safar Sénégal la wax na lu leer nañ dëgg la de borom bànqaat yi ñu doon yëkkateeg lu yëpp war nañ xam ne. moo ñu jox suñu bopp. barke moom suñu bopp moo tax ñu ñemee noot. wallaay wallaay wallaay. isharara suuda lu ko ay Jean François ak la ñuy tudd ñëpp sëñ ga. barke Cheikh Ahmadou Bamba dëgg la. dogoon ko nag dem gi wolof nasaraan sama waa ah, maa ngi leen di siyaare ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare. Ah, seen wayjur wu jigéen a ngi toog it. ak seen i nijaay ñëpp a ngi. ndeysaan ñuy waajal safar nag suñu jàmm. safar mooy suñu indépendance suñu jàmm. wallaay wallaay. dama lay leeral ne weeru safar lañu am fukki fan ak juróom-ñett ci la moom suñu bopp. suñu jàmm dëgg de wér na de. te billahi maa ngi lay seede ne li say li Sëriñ Saali waxoon ne ñaar ñu ànd. ki mhm. fonk ko kii euh, euh, néewal ko. Mhm. ka ko fonk ca kanam rek te ñun. moo ci dal bu set ka ko ka ko funkul gis la la fonk di ko rawee. ba bu set muy am de. waaw bu ma sañoon du ma raccroché waaye comme ñeneen dañu bëgg a. ndeysaan ndeysaan ndeysaan signal yi Badara ndeysaan Petit Mbao. amuñu lu jub Serigne Touba léegi la fi gaa ñi jóge ñoom oh. jàpp nañ seen safar fukki fan ak ñaar. wallaay xam nga léegi yematuñu sax ci fukki fan ak juróom-ñett rek ñu dem Touba ñëw léegi benn fanu safar bu tero ci lay tàmbali waaw àdduna yëpp man man sama bureau démb. Mhm. <laughs> xëy na ñi ma bokkal bureau ñu may dégg. waa mhm. Trésor bu Ndakaaru RPM Dakar Plateau. Mhm. xëy na collègue yi ñu may dégg dama ne leen. Mhm. dinañ laaj kilifa gi. Mhm. suñu mayee bu nit ñi wàccee ñu safar ndax ku ne fa nga am nga war a sant Serigne Touba. dëgg la dëgg la. te ñun fii altine ba àjjuma fii la yend kon fii kër la ci ñun. ci mbedd mii nag jàkkaarloo kër Cheikh Béthio fi la ñuy tant benn fanu safar ñu wane ne weeru sëñ bi teru na. ndeysaan jërëjëf yàlla lii yàlla yàlla nungu yëpp te fay leen kon nag ñu ngi lay eh, topp a ngi nii de. Mhm. ñu ngi lay topp bu baax a baax. wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la. Eh, du ñàkk bés dinañ gisee. incha allah dana bu soobee yàlla waaye ñu ngi lay ziar yàlla yàggal la. Ah, amiin ndax yàlla alhamdulilah jërëjëf sant euh, nañ la gërëm nañ la yal na yàlla yokk xam-xam bi. amiin ni nga sant Serigne Touba ji leer nañu ndax waxoon nga benn émission keroog bi ñuy sant euh, anniversaire Serigne Saliou bi. Mhm. Mhm. nga ne étage yeeg oto yu rafet yeeg yëpp delloo nga ko njukkal Serigne Touba ndax lépp moomu Mbàkke yaa ko wax. ah dëgg la loolu wér na. nga ne gëdd gi nga am ak teraanga gi nga am yëpp delloo nga ko sëriñ wallaay moom barke si am keroog laa yëgu yëguma kenn ku ma jàpp ne yaa ko defal moom rek rek yàlla nañ jàmm amiin amiin amiin waaw ko màggal ci jàmm daje ci waat waxtu wi ah. ay ati ati at amiin amiin amiin amiin te daje ci ngërëmu sëriñ Touba amiin barke Cheikhul Khadim amiin barke Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf ñoo ngi koy sant baax ak bokk boor yi mbokk yi Petit Mbao yëpp ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax eh, niñ ko waxee woon rek bokk yi xam ngeen ne jataay bii lépp ci laltaayu màggal gi la lépp ci yaatal gi la di jaajëfal bu baax a baax bokk yi nga xam ne ñoom it ñoom ñoo ñuy jox ndigal ci taxawaay yi ñu ci taxaw ànd gi ñu ciy ànd di di di di ci liggéeyal Serigne Touba taalibe yi di bég ci àdduna bi yëpp euh, gis nga démb rek Mbambilor euh, jullit yëpp taalibe yëpp bég euh, di jaajëfal baax sëñ Moustapha Mbakke ak sëñ Mamour Bousso ak sëñ Mohamed Mbakke ñoom li nga xam ne Euh, forum bi foofu lañ ko tàmbale woon ci Mbambilor ñoom it taxawaay ba mu solo bi ñu ci am waaye démb xam nañ ne lislaam gën na am ndam sax waaye murid yoonu murid gën na am ndam te seeni taxawaay rek moo leen mayoon loolu kon waa Mbambilor gépp ñoo ngi leen di jaajëfal ñoo ngi leen di di sant bu baax a baax euh, ndaka noonu yi ndakaaru gi nga xam ne fi la yëf yi di mujj yëpp ñoom it ñoo ngi leen di jaajëf ak bokk yi nekk ci gox yi ci àdduna bi yëpp nga xam ne fépp fi ne ñu Euh, magal gi euh, loolu it ku ko def yaa ngi kilifa yu baax yaa ngi ci dëkk bi tey ji bàyyi yitte yàpp bàyyi seen i kër génn ko euh, ngir wane liggéeyub Serigne Touba bu sell bi kon yàlla na nu leen yàlla fayal ci barke Xaadim Rasul di jaajëfal it bokk yi nga xam ne ñoo nekk ci béréb bi sëñ Mbacke Mbodj mi nga xam ne moom la ñu àndaloon ci liggéey bi ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di jaarale ci moom ay cant ak i nuyoo ci bokk yi nga xam ne ñoo si ëq gi sëñ Jibril Ndaw waaye sëñ Moustapha Kane ñu ngi jël ay nuyoo allo oui. daa mel ni am na ko ne ci biir salaamaaleykum. salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw ah, bisimilah. Euh, asalaamaaleykum. salaam wa rahmatullah. kooku sëñ Gana. Mbakke. waaw ah, man la Cheikhouna Ahmadou Bamba Gueye. Cheikhouna Ahmadou Bamba Gueye na nga def maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar bu baax a baax. fay wootee sëñ Cheikhouna. ñay wote fii ci Dakar mbor ah ya, ndeysaan bismillah ñay ñooy émission bi di ko rafetlu. ah ndax yàlla alhamdulilah. bisimilah. sëñ Cheikhouna Ahmadou Bamba Gueye di wote fofu ci Ngor xamna ci walu téléphone bi la momi it noo ngi koy taaxeerlu waat rek ci 88 628. 08 18 euh, ci lépp rek jëm ci wàccaayu màggal gi nga xam ne bokk yaa ngi koy bàyyi xel incha allah suba xam ngeen ne masalikul jinaan incha allah bokk yi bàyyi ko xel bu baax euh, ci teewaayu Cheikh Abdoul Bachir ak euh, ñi nga xam ne ñooy ñi mu seqal liggéey bi yëpp te di ko taxawu. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah. ku baax si na. ah ku baax kooku. Youssou Samb. sëñ Youssou noo lay siyaare Samb. ba jam ngi si jàmm bu baax gànna waaw ah, noo ngi sant sëñ Tuubaa rek bu baax a baax sax ñu ngi ñaan nga yàgg fi loolu te wér nag amiin ñu bokk barke Seexul Xadiim waaye man dafa am lu ma la bëggoon a ñaan rek ngir jëm suñu taa gi ñu bokk hmm. mooy man damay gis maanaam da ngay waxtaan waaye sëñ Modou Fadio Dieng daal hmm. bëgg naa nga la boobu yenn saa yi nga xaw ma see defal yow deglu. ñaar ci waxtaan yi hmm? bi ci ne waxtaan yow da nga ko dégluwut waxtaan yi nga sëñ Amadou Fadia ma leen mm-hmm. booy wax loolu dégluwoo waxtaan da ngay dem kër ña nga laaj leen ko. non non maanaam maanaam si si télé bi laa wax man maanaam nga jàllaleel ma ko rek. yenn saa yi nga ah, ni ngay waxtaanee. ñoom ngay joxe ndigal daal mag ñu baax ñaanoon ak sëriñ bi rek yenn saa yi nga ca waxalal ma ko ci man it. Eh, eh, jërëjëf waaw danañ ko def incha allah. danañ ko ah. def baax danañ la defal spécial sëñ Amadou Fadia ma ñan danañ la ko defal baax bu soobee yàlla leen ak góor danañ la defal spécial sëñ Amadou Fadia ma ñan ni nga ko bëggee ndax noonu rek la ab taalibe bi moom day fexe ba fam mbokkum fonk ko ta japp ko bax bu soobee yalla yow mi jox ndigal lol nak xamna bo nopé nak may wo ba ma xam bu baxa bax ko do nak nuñ koy jare ba def ko rek da na lako defal seigne Ahmadou Fa jama ñang xana xamone li gëna yéme moy euh seigne Ahmadou Fa Jama da da da tukkib gi gi dañu am secret yu bari inshallah da danañ ci waxtaan bis jërëjëf mbokk moom noo ngi koy jaajëfal di siaré seigne Sidi Ñang assalamu alaykum di siare sëñ Sidi Ñang momi di suñu wala di sëtu suñu Ahmadou Fadiama Ñang di doomi sëñ dekk Awa Balla ak sëñ Cheikh Ñang ak mboolem mbokk yi fété Touba Kër Ñang yépp noo ngi leen di nuyu di leen siare bu baax baax euh, comme noonu ñu ko waxoon suba inshallah allah yi bayyi xel wacca yu baax muy Cheikh abdul bashir ñew gi mu wara ñew ci masalikul jinan ngir ñu taxawee euh, forum ak liggéey bi yépp euh, inshallah allah mbokk ko bokk yépp bàyyi xel kenn ku ci nek dal Balla ah sëñ Diallo Moussa ku baax kooku. sëñ Bay sëñ bi. ah sëñ Bay sëñ Bay sëñ bi. sëñ rek kay sëñ bi. sëñ bi rek kay sëñ bi. sëñ bi rek kay sëñ bi. kenn sëñ ku jàpp ne sëñ bi doo sëñ bi sëñ sëñ bi. ku dajul sëñ bi dajoo ku ko daj daj nga. wallaahi ku dajul bàmba dajoo ku dajul bàmba la nga daj. aw doj la wun la dij te da nga day day daj ko nag sëñ bi nag moom du ku ko daj eh. suñu plan ne woon ne fu waay bëri nga bokk ci moom taxaw ak koo mën a doon kon mooy daj dëpp ay waay waay ay waay gàll yàlla na nga gudd fan amiin ay ba gis Seexul Xadiim ñu ñu ngi lay dégg bu wéri wéri wéri wéri wéri ndeysaan ndeysaan sëñ Gàll Mbakke yàlla na nga am ngërëmal sëñ Tuubaa amiin am ndok sëñ Gàll hmm, hmm. sëñ bay sëñ sëñ bay sëñ sëñ sëñ bi sëñ bi sëñ. sëñ bi sëñ bi. sëñ rek ay sëñ. sëñ bi rek ay sëñ barke Seexul Xadiim. sëñ rek ay sëñ. wallaay kenn du moom. déedéet kenn du daam Mbàkke. 1895. ba 1902. Hmm. sëñ Tubaa ak amut. déedéet. liggéeyam ak amut. dëgg la. ku taxawoon ci ginnaawam na ak maag maag amut. wallaay. sëñ bi kot. yàlla képp Rasulullah képp sëñ Tuubaa képp sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa dong moom rek sëñ Tuubaa rek képp moom rek kot dong noonu laa dégg nga koy waxee moom rek kot dong rek sa ñett sa ñett yooyu nag moom rek kot dong boobu nag ñett képp la sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa dong moom rek moom yàlla la Rasulullah moom képp ñett yaa ngoog dëgg la kot dëgg dëgg la de yàlla amut wéttal rasulullah gën ku yàlla bind suñ tubaa jëfal ku yàlla bind. wallaay wallaay wallaay. ak ku ma mën a doon soo ko xamee boo ko xamut sëñ bi la defal loo mën a am. dëgg la. jànn. mbakki. jëng yeeg lépp suñ tubaa daj na ko. wallaay wallaay bala ma ci ne. ràgg geeg rafle ko fi. wallaay wallaay wallaay wallaay. waaye naar bi xoromam. dëgg la de dëgg la de. ku sabal sa cin rek defal yow la. wallaay wallaay. waaye sëñ bi suukar baraade yeeg cafetière yeeg syndicat yi. sëñ bee nooyal lal yi indi mbaj yi. indi fi dara yeeg ganilaa yi. ndeysaan wallaahi wallaahi wallaahi. waaye ku sa soxla ganilaa sax bu bu sa gan ñëwee ngay xubbali ko te defoo dara. sëñ bi mm. la ñu xam ki ko moom. wallaahi wallaahi wallaahi. sëñ bi lekkut tëddut nelawut lekk noo ngi lekk noo ngi tëdd noo ngi nelaw. wallaahi wallaahi wallaahi sëñ li ñu delloo naar bi xorom si. wallaahi. sëñ bi sëñ. sëñ bi sëñ bi. sëñ bi sëñ bi. wallaay sëñ bi sëñ bi. sëñ bi rek ay sëñ bi. sëñ bi rek ay sëñ bi dëgg la. kenn du moom. wallaay kenn du moom barke Cheikhul Khadim. la am bi. ay barke Cheikh Ahmadou Ba. di ñëw nag. Mhm. di màggal bu mag bi. Mhm. ci dëkk bu mag bi. Mhm. ci bu mag bi. ci jumaay ju mag ji. ci bis bu mag bi. nanu ko fekke def ci des fi da def. na ko ñëpp fekkee ku ne def ci te des fi te desew def amin amin bu nu yàq te bu nu yàqule te bu nu kenn mën a yàqal amin amin bëgg Cheikh Khadim fu nu jëm dekk fa sëñ ba fu nu toog toog feeg sëriñ bi bu nu geesoo gis sëriñ bi amin suñu wëlbati koo gis sëriñ bi amin bëgg Cheikh Khadim amin bëgg Cheikh waaye daal barke Ahmadou xam Khadim ku la bëgg la wallaay xam naa ko Baye Fall wallaay ndeysaan barke Cheikhul Khadim yaa Fallu gën a si la ak ma lii la bëgg barke wallaay loolu de xam naa ko baax xam naa ko baax ak ma leen a bëgg. ndeysaan da ngeen di soldaaru sëriñ bi. ndeysaan ndeysaan. da ngeen da ngeen ne kennal sëriñ bi gànna yow kenn nga kennal sëriñ bi. alhamdulilah alhamdulilah. te sëñ Tuubaa yetti faa rek la am fit fu la fayda. fit fu la fayda. murit yi dañoo war a am fut ak ful ak fayda. dëgg la de dëgg la de. ñu teg ca bu nu fo bu nu fuuy bu nu fàtte li nu fal. faayaangoo. wallaay. sëñ Gana. Mbakke. fi ma duggee la waaye. du ma fi ñu daal waaye nag naa xajal ñu si ginnaaw. ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. jërëjëf illa billah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Fallou noo koy ziare baax a baax ci xaar yàlla di ko jaajëfal moom it kuy bàyyi xel jataay yi la ndeysaan di ko gërëm bu baax a baax euh, ci wax ju am solo ji nit ko ko sopp la ngir jëmmi sëriñ bi euh, kon mbokk yi xam naa day mel ni euh, jataay bi ñoo ngi nekk ci mujjanteelu jataay bi loolu dañoon jataay boo xam ne dañu ñëwoon mu bokk ci wàccaayu màggal gi jotoon ci ay ndigal ñu ñëw teew bokk ci bokk yi liggéey bi ñu ko waxoon di leen jaajëfal ñoom ñëpp di leen gërëm bu baax a baax di leen sant ñi bokk yi amoon yéene tàbbi si ci biir jataay bi te te te ak siwunu ak bokk yi nga xam ne it ñu ngi ci yoon wi ñoom it ñu bàyyi xel bu fekkee am na meneen mbokk mu ne ci biir bi mën na ñëw ci 88 628 08 18 bu ko defee ñu mën a door a tàggatoo yëkkati jataay bi kon daal na bokk yëpp bàyyi xel jataay bi te waajal suba incha allah Masaalikul Jinaan ngir eh, màggal gi ni ko sëñ bi wootee xam ne la sëriñ Saliou waxoon nag ñaar buñ dendee kii di ci def kii du ci def bët bu set ki ci ki ci ki ci dul def di gis ki ciy def li mu koy rawee te loolu kenn ku nekk rek na seet saan wu ne dana mooy moom ba mu des saanu màggal gi ndax màggal gi moom day ndigal lu wér loo xam ne sëñ bi ci joxe woon ndigal loolu Cheikh Ibrahima Fall doon wax ne jumaa jeeg eh, ak màggal gi saa yu ñëwee na ngeen ci def loo leen man ak loo leen mënut ndax ndigalu Sëriñ Tuubaa la kon loolu ndigal nañ ko bàyyi xel bu baax te wajal ko te gën ci farlu te gën cee gor asalaamaaleykum alaykum salaam wa rahmatullah ganna me Messere ñu ngi lay ziar wër ah ku bax kooku mam jaara der mam jaara der der ah soxna mam jaara der. na nga def may sant bu baax baax no ngi lay di siyaare der. alhamdulilah ñu ngi delloo siyaar xol yee sedd jàkkaarloog télé bi liñ bëgg wax lepp duñ ko mëna wax na ah, ndaysan ndaysan der di sant Serigne Touba bu baax a baax. walaay walaay deer walaay. di sant Serigne Touba bu baax a baax bu ma yëkkatee bëgg a wax Serigne Touba sama xol day fees ba du ma a wax. ndeysaan ndeysaan dëgg la deer. waaye ñu war a wax xam naa di ngeen ko wax. ndeysaan ndeysaan. sama xol sedd. ndeysaan damaa daanu kenn du ko wax waaye xol bi tooy na mënatuma wax dara di ziar bu baax ak sant. Eh, ndeysaan ndeysaan ndeysaan. Mm-hmm. jërëjëf. jërëjëf soxna maam Diarra deer. Euh, jërëjëf soxna maam jaara deer ñoo ngi koy jaajëfal bu baax di ko sant yàlla na ko yàlla euh, fay te dolli ko taxaw euh, xolub taalibe moom faw muy fees ci sëriñ bi rawatina ni ko sëñ ba Badara waxee woon léegi bu màggal gi jubsee moom taalibe yëpp dafay mel ni dañ neen a dolliwaat mm, courant ngir ñu gën a sawar ngir xam ne day ndam loo xam ne ci deret yi képp koo xam ne am nga ak gëm rek wala nga am ak cofeel ci sëriñ bi dafay feeñ ci yow ndax day liggéey bu rëy boo xam ne Waalaikumsalam warahmatullah. Uh, bismillah. Assalamualaikum. mbokk mom la mel melni ni ak siwul 628 08 18 jaajëfal bu baax baax mbokk yi ñoom ci bàyyi xel gi nga xam ñu koy xel bi di leen sant bu baax ci ñu gën waaj rek dëkk bépp gën a yëg ne na lu jub si ñu ne lu mu doon ñu ne fukki fan ak ci safar di bisum ndam di bisub lislaam di bisub yëkkatiku kon mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax ci seen taxawaay ak ci seen liggéey di dellu di sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañ nekkaloon ci liggéey bi tam àndoon kook ñun ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax sëñ Mbacke Mbodj ñoo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di dellu di jaajëfal jëwriñ moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax euh, alhaji Mbacke yu fay kon loolu lenn la woon ci wàccaayu màggal gi bokk ci plateau yi nga xam dañ ko doon def ngir waajale ko màggal gi ci forum bi nga xam ne ñu ngi ci woon ci fan yëpp kon yàlla nu yàlla defal tawféex defal nu dimbal dajale noonu ngërëmu Serigne Touba ñu yàgg ko woote yàgg cee daje eh, ngeen àndoon ci ak seen mbokk Gana Messere Maxtaar di jéggalu bokk yi nag ku ci dégg ci wax ji loo xam ne juumte la nga jéggal nu ko xam ne gàttu xam-xam gi la rek ak xel gi ak yéene ji waaye lu ci jubit ñu bokk sante ko yàlla kon incha allah ci yeneen jamono ñu ànd ak yéen mbokk yi liggéey yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu سيد أجل لمعصنا